jëre ngeen jëf ñu am mbégte retrouver leen ci seen jotaay bi nga xam ne moom lañuy ñuy waxtaanee lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram fii ci senegal 7 émission bi ñu weesu nag ñu ngi doon waxtaanee lu jëm ci wàllu hépatite tey ñu bëgg waxtaan ak yéen ci lu jëm ci siti ki ñu ci àndal nag mooy ki ñu taamoo di ko defanteel muy docteur Abdoulaye Diallo di naturopathe euh, xelam màcc ci lu jëm ci feebaru cosaan waaye ànd ci ak euh, garab yu am garantie docteur ñu ngi nuyu. maa ngi lay fay euh, sama xarit sama doomu ndey Jelani mm-hmm. di nuyu Yash mon frère di nuyu bopp groupe bi ba ci suuf di leen jaajëfal den baalu ak bu baax a baax di baalu ak aussi téléspectateurs yi mm-hmm. ak tous les patients de du cabinet Ndiadri d' accord alors euh, jamono bi weesu waxtaane woon nañ ci wàllu hépatite ak euh, développement yu am solo yi nga xam ne defoon nga ko ci ba nga waxoon ñu sax ni hépatite boo koy faj faw sax nga jaar yenn saay ci siti siti boobu nag la ñu waxtaanee tey mhm. lan mooy siti eh, c' est vrai que man maa ne woon kenn mun weer ci hépatite fekk dangaa amee siti mm. Jëlante posé nga ma question bu bu am maanaa damay faral di naan siti mooy bàyyi feebar yi bàyyi feebar yi ndeyu feebar yi biir la muy kolopati mais bàyyi feebar yi siti la eh, dinaa leen xamal ne lu tax man ne leen siti mooy bàyyi feebar yi siti aussi germe la xam ne neenal hépatite maladie virale la situ aussi germe la. ci deret buy dund ci dret tubab nag xamu ko. Mhm. moo tax damay faral naan tubaab télé ci lu bëri. moo tax tubaab télé ci lu bëri. Mhm. ñuy traité waaye du ñu soigné ñun nag dañuy soigné dañuy wéral boo xoolee tubaab lim la jox dalay taneloo avec effet secondaire comme ñoom nag dañoo am sañ rek di wax ci ñun ñun dañu am sañ-sañ tontu leen parce que xamuñ ni que dans la médecine traditionnelle wala naturopathie mhm. am na ci ñoo xamante ne ñoo leen raw ñoom ci li ñuy def dañoo nag ci seen lobby nag ñoom rek ñooy nit ñoom rek ñoo xam ñoom rek ñoo moom ñoo monopoliser la santé teguñ ko feet nag Mm-hmm. parce que même alxuraan bi am na médecine. Mm-hmm. même alxuraan bi am na médecine. sama jabar te yeewoon ak biir bu metti ma ne ko léegi mu deñ ma jël kopp ndox jàng ci neuf versets coraniques tufli ko ci ne ko naan lii moom jeex na mun naan mën ko raayal ci biir mu raay même pas deux minutes mu wér amul benn garabu tubaab bu ko mën ma ñëwaat ci siti bi kon balaa ñu ñëw si si tibb yi docteur. da ngay hmm. fajee ci ci alxuraan aussi. waaw. loolu xamuñu ko woon waaw hmm. xam nga patients yi xam nañ ko. Eh, am na ay vidéo yu ma yu ma doon ne door laa woon bi may def affaire <laughs> maraboutage dóorkat laa woon. on se rappelle. waaw hmm. eh, bi j'ai réduit ci feebaru AVC boo xam ne ci ngelaw seetaan la jógee laa koy laa koy def. wala ku amee rab wala ku am envoûtement koo xam ne dañ la liggéey ba yàq la mm-hmm. wala ku nekk extérieur soxla papier fii fii la dóorkat yi di laaj ay million man trente cinq mille ngay def ma bindal la yónne la nga am ay papier nga am liggéey en moins d' un mois parce que traitement bi vingt et un jours la ah loolu rek nga koy laal xam naa certainement dañ ciy consacrer benn émission spéciale li may defaat encore malboutage mooy ci entente entre couple wala entente entre famille famille bu déggoowut ay doomu ndey doomu baay yu déggoowut wala njaboot gi yëpp déggoowut attention il faut nag ñoom ñëpp ñu teew ci benn kër gi bu kii nekkee Canada kii nekkee Amérique kii nekk Mali te jarul ngay ñëw parce que li ma man ci cin lañ koy def ci togg lañ ko def ñëpp toggandoo ci hmm. ñëpp lekkandoo ci alxuraan la rek wala fi ñuy naanee bokk naan ñoom ñëpp ñu naan ci hmm. ñaan la rek siti mm. moo tax tubaab yi tele lu bari moo tax mënuñ faj arthrose siti mooy indi arthrose siti mooy indi faiblesse sexuelle moo tax ñu tele ci faj ngóora garab yi ñor yëpp ay aphrodisiaque la da ngay naan benn guddi nga nekk góor pare nga ci siti mooy tax ngay gaaw daanu li ñuy wax éjaculation précoce wala ñu ne ko éjaculation faciale mënuñ ko faj ay aspirateur la yor li ngay asperger wala ay garab yoo xamante ne effet retardateur anesthésie la rek benn guddi jeex na ñun ñu faj la ko ba mu wér mais toujours ngóor a yow éjaculation précoce yow il faut nga jël siti et attention patients yi il faut ñu xam li ñu bëgg mënoo ñëw ne da nga am faiblesse alors que amoo faiblesse sexuelle Mm-hmm. gaaw a daanu tekkiwul ne nga am faiblesse sexuelle loolu du faiblesse sexuelle loolu éjaculation précoce la boo ñëwee ne ma eh, <laughs> ngóor laa bëgg a faj ma laaj la sa quarante mille nga fay ñu jox la garabu ngóor doo gis benn résultat parce que amoo problème ngóor mm. garabu ngóor ak garabu gaaw a daanu bokkut. donc il faut que diagnostic bi exact. il faut ñu laaj la. Mm-hmm. te kenn du faj ngóor jaarul ci deret bi wala ci biir bi comme tey sujet bi siti kese la. Mm-hmm. su ma ñëwee ci biir dinaa ci développé biir muy def ci ngóor. léegi nag siti mooy tax nit yaramam di tàng mm-hmm. am na ñoo xamante ne sax ay ndoxu glace la lañuy sotteeku tu rek mu sedd tubaab xamul siti mm-hmm. siti am na ñu ko ne am ñoo xamante ne buñ ko amee dañuy moytu ventilateur comme aussi am na ñoo xamante ne dañu taal ventilateur rek mooy ëf tànk yi siti mooy tax oom yi yukk yi di wow articulation yi yëpp yukk yi di wow mooy wooloo yukk donc mooy indi polyarthrite rhumatoïde mooy indi arthrose man du ma la faj arthrose walla ma faj la polyarthrite fekk fajuma la siti Sénégal ñëpp siti mais le problème mënuñu dem fi ñuy fajee ci siti parce que ñëpp ay reenu daqaar ak reenu dànq la ñuy fajee loolu faju siti yàq yàqati bàyyi leen loolu day yàq rein wax naa ko waxati naa ko ci ñu laaj leen ci loo xamante ne lu jéggi dawe la c'est pas la peine man trente mille ngay fay ñu faj la siti trois semaines six sachets en trois semaines jeex na moins de un mois moins même de vingt et un jours d'accord parce que bu nekk peut-être boo defee ci bouteille bi deux li deux jours lay def wala deux jours et un matin. Mm-hmm. donc ça fait même pas trois jours fois dix huit fois six ça fait dix huit. parce que il faut aussi siti bi des des ci yaram bi duñ koy éradiquer ba mu je mu des ba mu jeex takk siti mooy indi ay picc ci yaram mooy indi ay ër ci yaram mais munoo faj xasan bi ak ër yi fekk fajoo siti bi. siti bi ci deret bi la nekk da ngay faj ci biir ba pare faj ci biti boo ñëwee da ngay nangoo génne xaalis nga faju siti d'abord après nga faj xasan heure mhm. xasan bi ak heure yi nga faj ko picc yi tâche yi munoo ñëw rek ne ma tâche yi picc yi ñoo ma yaram bi tàngatul naa la jox garab boobu déedéet il faut d'abord soigner le mal à la racine siti mhm. mooy joxe pied d'athlète mooy ñi nga xamante ne seen baaraam yi fii day weex siti day yàq ongle siti mooy tax góor yu bëri di chauve mhm. du ñam karaw siti day yàq bët bët yi di jooy mhm. bët yi di flou siti mooy indi avortement jigéen yu bëree bari yi avorté ñuy dem ci fenkat yi dina naan ay rab la wala ay liggéey dañuy fen hmm. siti mooy avortu lu jigéen kooku wéy rek ne ñoo a faj ko siti bëri na niñ koy jiiñ maa ne bon rab daa mën yàq biir rab c'est un esprit esprit mu yàqee biir docteur bëri na xam nga ni ngay géntee ni ngay géntee un esprit rab hmm. suba nga gis say règle wala boo ëmboon mu yàqu ça hmm. ne veut pas dire rab bi moo yàq sa ëmb rab bi mënul accéder foofu c'est pas possible c'est pas suñ ko weddee ñoom jigéen yooyu seen yaram day tàng bu ñu seetloo bu ñu ko xamul bu ñu jegee seen jëkkër day naan bébé sa yaram bi daa tàng mhm. benn si yangoog wa'ila sen karawɗe dag ɗi rus wa'ila sen noppa ɗi rir nopp bi rir bi aussi siti da koy def da koy def oh. da koy def am na ñuy seen noppi di rir ñu dem hôpital ñu leen joxe garab tension fekk du tension justement fekk du tension mhm. siti da koy def te garabu tension yi da nga koy naan à vie mhm. ah? léegi yaa xëy te ñëwal rek man ma jox la garab tension 40 mille ngay fay 4 semaines c'est fini dootu jël garab sa tension day régulariser kenn nag du naan day faj tension définitivement ba mu wér parce que nit ki mu ngi lekk xorom ça ça ne se dit pas. Mhm. d'ailleurs même ana ndey nga faju benn affaire nga wér nga naan du ñëwaat. tu continues les mêmes bêtises tu auras les mêmes conséquences. amul maladie booy faju mu wér mu bañ a ñëwaat. day ànd ak benn comportement adapté. ah ben oui. Mhm. nooy jëlee garab colopathie nga naan ko nga tàggoo colopathie di continuer di lekk riz spaghetti pâtes tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps. tu vas avoir la même chose encore il faut changer ku faju colopathie par exemple colopathie par exemple tubaab day naan régime à vie man benn yoon ngay naan garab yi ngi wér. mu doon colopathie fonctionnelle ou chronique dinañ ci ñëw ci beneen émission. incha allah mhm. siti. Mhm. nee moo yàq ëmb. siti day tere sax jigéen ëmb parce que day perturber say règles bari na ñoo xamante ne dañoo taxaw seen rek dafa bloqué a tax. Hmm. du ma la faj règle bloqué bi tant que fajuma la siti bi trente mille après nga ñëw jël garabu règle bloqué quarante mille. Hmm. nii la ñuy fajee règle bloqué. wala anormal toog trois mois doo gis quatrième mois nga gis kooku siti moo koy def siti hmm. moo tax góor yu bëri mënuñu am doom aussi hmm. moo tax tubaab mënul faj maniw day altérer maniw bi day indi azoospermie wala mu indi asthénospermie wala mu indi oligospermie wala mu indi tératospermie wala mu indi tétranospermie wala mu indi hypospermie wala mu indi hyperspermie wala mu indi nécrospermie wala mu jox la trois signes OAT ou OAN oligo-asténo-térano ou oligo-asténo-nécro too faju siti bi kenn mënu la faj symptôme yooyu maa fi mën de ah, xam-xam la de tubaab buy docteur boo toogee sama kanam di nga jébbalu <laughs> man maa yàlla am de mhm. barki xaadimu rasul ci Sëñ Tuubaa bon wax baaxul siti uh-huh. mm-hmm. mun na dem ba jox la sinusite ngay gis bakkan bi di génne odeur mm-hmm. lii moo tax ñoom mënuñ faj sinusite parce que mënuñ faj siti yi ma fi tudd yëpp mënuñ ko faj parce que mënuñ faj l'origine sinusite boo gis siti la da ngay borom siti ba pare faj ko sinusite ma nag day siti day indi mauvaise haleine déedéet mauvaise haleine leneen la dinañ ci ñëw ci beneen émission incha allah mhm. donc gis nga siti li muy def ci mais nag dans par par les maladies rhumatismales comme comme rhumatisme comme nerf sciatique comme hernie comme euh, euh, rhumatisme wax naa ko comme mm-hmm. polyarthrite rhumatoïde comme arthrose siti ñaar rek la ciy indi polyarthrite rhumatoïde bi ak arthrose bi képp koo xam ne faj naa la arthrose wala polyarthrite rhumatoïde te fajon siti gaaw nga ñëw faj siti bi doo wér bàyyi leen nay njëkkee leen siti bi ba pare te ngeen bañ a yàkkamti mm-hmm. munoo ñëw rek parce que arthrose nga am nga bëgg maa commencé loo arthrose du ma ko nangu man damay faj xam nga bu doon xaalis rek arthrose quarante mille par mois la ah hmm. siti trente mille la kon nga ma jël quarante mille bi mais man maa ne fayal d'abord trente mille nga faj lii doo def noonu rek nga yaa xeeti nga am jàmm ma am jàmm hmm. boo doo faj arthrose bi dañuy ñëw surtout maire yi dafa métti nag métti ay métti et puis Mhm. léegi loolu traitement bi comme combien de temps lay jël docteur. cité waaw wax naa la ko léegi. rappelé ko cest sachet la c' moins de trois semaines. d' accord en moins de trois semaines tu es tranquille ñii di coow fi naan dañuy faj cité yëpp ay yaay cité ay pas cité ay mère cité dañuy coow rek c' est n' importe ñu bëri bëgg nañu ñëw ci yow mais xamuñu nu ñuy def loolu leen ci mën a wax. c' est facile ñu ngi Petit Mbao. entrée Petit Mbao am nañu calando calando boo jël nga ne ko docteur Abdoulaye Diallo. ci mango yi da ngay préciser nag ci mango yi deux tables laa jël ci mango yi parce que bon ñoom yéen may wooye docteur man du ma docteur. la fajkat laa. xaw ma nag ndax docteur parce que docteur <laughs> dafa bëri façon aussi ah. Mhm. xaafis sa sax docteur léegi nag dafa am beneen jàll bu ne foofu kooku côté Grand Mbao bi la nekk. Mhm. moo ma fa jiitu huit ans te bokkuñ sax médecine bokkuñ sax médecine. bokkuñ sax lu ñuy def te boo ñëwee ci moom sax di nga xam ne du du ci jàll nga ñëw parce que man ci man man sama kër dañuy ram nit ñi dañuy bëri moom foofu kenn <laughs> par contre goutte bokkul sax te kooku day fayeeku consultation quinze mille xaw ma dix mille ah bon man du ma fayeeku consultation hmm. man gëwuma yooyu nit ki moo gën a xam boppam hmm. boo ñëwee soo waxee ma xam ne lii nga amee nangam nangam ñu waxtaan ma ne la jëndal garab bi loo ci fay wala di fay ay ticket d'entrée comme ça hmm. pour ñu gis ma ni faut ñu fay yooyu ay dóor la ticket 3000 ticket 2000 ticket 1000 francs ticket 5000 ko koy def kàccoor nga sàcc nga maa ko wax ay wala visite privée consultation privée fenn kese la. loolu bëri na te jot ma ne ay dealer lañu maa ko wax. du ne woon naa leen lépp dina leer. Mhm. ñoom ñëpp dinañ fi jógee du gis nga. ñoom ñëpp ñu ngi nop ñaaw naa leen tôt ou tard man kese maay des ci ci YouTube bi ci réseau yi ci télé yi man kese man sauveur du peuple la mm-hmm. barki xaadimu rasul sama dara amu da 2016 jëm léegi lekkuma dërëm bu dewul te ñaanuma yàlla ku dul wér dugg sama kër te yàgg wax naa ko fii ci sa plateau bi nee naa képp ku nar a ñëw ci man defal deux rakka la veille nga ñaan yàlla bu dee naroo wér yàlla boo ñëw sama kër boo yow yàlla na am benn gàllankoor nga bañ ñëw gàllankoor bu positif nag waaw ñaan lu ma kenn bo musiba d'ailleurs sax boo narawul booy ñëw ñuy xulo boo ñëw sax dama lay dégager attention ma wax naa ko Pape Ngagne dem ma man bi ma commencé di génn Sénégal set ba léegi damaa neex mm-hmm. xam nga patient dañuy foog ne dama dama dama dama tàng wala dama méchant mm. dañuy ñëw daf leen di bett sax day gis ñuy naan yow nekk di nii nga simple c'est que nag bi moo xaw a difficile parce que man xaw ma maslaa mhm. man dëgg laa xam waaw mhm. man duma sax recevoir ci néeg kuy recevoir jigéen ci néeg tëj mhm. bandi nga maa ko wax jaabur jaabur nga recevoir ko tëj yàlla ne laa tagru bu sinaan bu leen jege yow nga ñëw tëj <laughs> nañu waxante dëgg dëgg bu wér kenn sañeetul sax yónni jabaram ci ci parce que dañuy dañuy doxal jabar. ah na liñ ciy dégg de ma. nee la ñuy def man lu nee gàllankoor bu ne jéem nañ ko def <laughs> man je suis zen man tâche déedéet mu du inventé woon nañu fii lu ne ci réseaux sociaux yi bett nañ ma ak journaliste ñuy di n'importe quoi du léegi ñëpp xam nañ ay fen la. Hmm. benn jour ma ne ku euh, ku yore euh, suul sa ndey mooy nga defal ko lépp ba neex àdduna. nga jox ko loolu mooy suul ndey waaye du dee rek nga nga def ko ci ci pax bi mm-hmm. ah rek ñu ne il a enterré sa mère <laughs> ku dugg nag ci video bi après nga comprendre ah. jéem nañ def loolu yëpp pour rek ternir mon image mais mënuñ ko lu yàlla taal wa qul jaa al xaq wa zahaqa al batil inna al batil kaana zahuqan la vérité est venue pour faire disparaître le mensonge n'est-ce la vérité qui fait fuir le mensonge wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ba beneen yoon docteur numéro bi c'est 77 203 08 04 jërëjëf ba beneen ñu ngi liggéey samedi dimanche lundi a Petit Mbao samedi dimanche lundi mhm. Touba tous les mardis à partir de 15 heures bu ma kenn yee Touba mardi matin 15 heures lay commencé ku ñëw taxawal ci bunt bi ba 15 heures ñu ubbi nga dugg d'accord ñoo ngi ñu jaajëfal leen euh, prochaine émission ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu hémorroïde. incha allah avec plaisir. Mhm.